ziyaara ci sa bés ci sa bési la ndokkeel di sunu kóllëre ak yow di nuyu sarak di sunu soppe di sunu wëllëre di sunu sëriñ Cheikh Mouhamadul Mansour di ko ñaanal yal na yàlla gën a dëgëral taxawaayam dana ko yàlla sàmm taar ñu ne boobu nag loxo lañ koy teg rek jëme ko ci mboolem sang yi teew ci jotaay bi ci dereti Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahim Niass ak njabootu maam El Hadj Abdoulaye Niass gi fi nekk yëpp. dinaa ci rek ràññatle ki nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadul Bachir. mu alxalifa alxaaji abdullahi ibrahim dinaa ci ràññatle siyidi cheikh ibrahim doomu xalifa mawlana cheikh ahmad tijaani waaye di ziyaara siyidi alxaaji mohamad zeynab mu maam sëriñ mbay di sama genn wàll di sama lépp ci seydi arabi bu alxaaji mohamad zeynab Cheikh Ibrahim bu Seydi Alxaaj Masum Seydi Abdul Baqi ku lim nag da nga juum ñu jéggal ma euh, ci li bi bala muy jël sama temps wax li ngeen ne nag ñu wax dara rek ci Seydina wa Mawlana Alxaaj Abdoulaye Niass maam alaaji abdullah ngir ñu wax ci moom danañu wax ci waaju góor bu mag bari yow yàlla boroom xam-xam boroomi karaama boroom nijaaba boroom njaboot bu barkeel kooku mooy maam alxaaji abdullahi Niass waaye bala door dara ci moom rek comme sama mbokk Bachir Dité nee na naa tënk bi ci dix minutes ma ne ko kon a xanaa mooy naa noppi rek waaye incha jërëjëf sëriñ bi baax na kon damay commencé ci dara maam alxaaj abdullah dafa am benn lettre bu mu bindoo lettre bi daanaka daf ci tarjamaal boppam daf ne inni walillahi alhamdu laa actamidu ila al illaa ala alkitaabi wa sunnati wal ijmaaci kama alayhi alcheikhu tijaani radiyallahu anhu ولا جلبني الله أو طبعني منذ ميزت إلى أن شحت على سلوك بنيات الطريق وما لا أرضاه لنفسي لا أرضاه للمتعلقين بي بوجه من وجوه التعلقات. mu ne man Alaaji Abdoulaye Niass maa ngi yàlla dippi ba ma amee xel bu ma sukkandiku lu dul ci téereb yàlla bi ak ci sunna yonentu yàlla mu ak ci ijmaa mooy li nga xam ne xeet bi yépp dëppoo nañu ci mu ne te it noonu la mawlaana cheikh ahmada tijaani radiallahu anhu meloon fa Cheikhu Tidiane tegoon tànkam rek man alxaaji Abdoulaye Niass fa laa teg sama tànk mu ne yàlla moo ñaalewu ma yàlla deful ci man dikku di ma ràññee ba ni ma nekk mag may sóobu ci ay ñal bokkoon na ci kàddu bu siiw mu daan wax daana wax ne muqtadan bi jaar ci aw ñal amal xaaji Abdoulaye daana wax ne ku ñuy roy ci doo jaar ci aw ñal dangay jaar ci digg yoon nga xam ne fi nga jaar ku la gis rek xam ne yaa ngi tegu ci yoon loola nag mu daan wax moo doonoon melokaanam moo doonoon jëfam mu ne lu ma gërëmalul sama bopp bu ma ko gërëmal ñu aju ci man ci benn anam ci añami aju yi muy mbëggeel wala nekk taalibe wala nekk wëllëre wa man ta'ammala fatawaa واستعمالات لا يراها إلا مطابقة للنصوص القاطعة والكتب المعتمدة mu ne képp ku settantal ubbee yi may ubbee ci masalay xam-xam ak li ma tànn di ko jëfandikoo ci sama diine man Alxaaji Abdoulaye Niass doo fekk ne loolu lu dul ne mu ngi dëppoo ay yàq yu dog muy yaxut alquran mbaa yaxut xadis yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbaa alkutubul mutamada téere yi nga xam ne maanaam borom xam-xam yi xeetu lislaam d'accord nañu ñu sukkandiku ci ndax am na ay téere yoo xam ne nekkul mutamada waaye alkutubul mutamada lañu wax man alxaaji Abdoulaye loolu rek laay segg di ko jëfandikoo mu ne it arju min allahi taala أن أكون ممن استمسك بما أمر به من الدين فنجا بدينه ولحق بالفائزين الطائعين الذين جعلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مناط الثريا وعضوا عليها بالنواجذ mu ne maa ngi yaakaar ci yàlla man Alxaaji Abdoulaye Niass ma bokk ci ñooñu nga xam ne moyaalu nañu ci li yàlla digle ci diine ñu mucc ak seen diine ñu dal di éeg ci yi nga xam ne dañuy topp yàlla ñooñu nga xam ne def nañu sunna sunentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy yëkkukaayu bi diwdaloon mooy moom lañ teg ci seen moom rek lañ màggal moom rek lañ fonk moom lañ def mu nekk lu ñu daal di koy ŋànk ci seen ay ruux seen mooy ñu ŋànk ko ci seen i dëgg maa anni walillahi alhamd wa lahu alminna shahidat li jamaatun min al ayaani uli lfadli والتقدم والولاية الذين يستحيلون تواضعهم على الكذب بأنني خليفة من خلفاء الشيخ لا من المقدمين على رغمهم في الحاسدين ومن لم يكن على يقين فيما ذكرنا تكذبه الشواهد التي معنا mu ne tayit man man alxaaji abdullah seedeel na ma am mbooloo ci sang yi nga xam ne boromi gëneel lañu boromi jiitu lañu borom bi wilaaya lañ dañuy lépp bi ñu seede seede ba wér na di ñoo xam ne itam bëri nañ bëri goo xam ne jomb na bu dul dëgg ñoom ñëpp d'accord nañu ne man alxaaji abdullahi waaye man alxaaji abdullahi xalifa cheikh na ahmad la mu ne loolu nag day toroxloo way añaan yi mu ne ku nekkut yaqiin ci li ma seede yi nga xam ne amee moo koy weer moo koy wetti kon li rek doy na pour taarif xaw xamle ana kan moo di Maam Alxaaji Abdullahi ci tegu ci alquran ak tegu ci sunna ak tegu ci ijma waaye kan mooy imam alxaaji abdoulaye ki jëlam ci yàlla comme borom wilaaya yi ak borom gëneel yi ak borom jiitu yi ñoom ñëpp dëppoo nañ ne moom maam alxaaji abdoulaye xalifa cheikh na ahmada tidiane radiallahu taala te werante amut ne cheikh na ahmada tidiane radiallahu anhu xalifa bi yonent yàlla Muhammad la képp kuy xalifa Seydi Ahmad Tijaani rek loolu mooy ne yow xalifa bi yonent yàlla Muhammad Maam Alxaaji Abdoulaye nag mbokkum réew mi yëpp la Maam Alxaaji Abdoulaye Ñas mbokkum adduna bi yëpp la ndax boo limee aw askanam mu ngay delluwaat ci uqbata ibnu nafia alfihri mi nga xam ne moo ubbi afrique ndax maam alxaaji abdullah ku ñuy wax muhammad moo ko jur muhammad moomu ku ñuy wax ngàjj moo ko jur mademba Abu Bakar moom la wax Bakari kooku Mouhamadul Amin moom la ñuy woowee Lamine Saati Boor doomi ma Samba wax Saa Corofal doomu Samba Deele Ñas ñi nga xam ne Rida moo di baayam Rida ci dëkk bu ñuy wax Bayda ca Libya foofu la wolof jeexe ci askan woowu duggaat ci arab yi boo ko seetloo da nga dégg géwél yi leen di kañ seen géwél tubri laa maca bay laa sa mooy laxnu bi nga xam ne jaam bu mu jëkk mi nga xam ne amul woon maxaara dul xarfu baab ñu koy jànge laa dinaan xayril maxluubi ilayhim wala laalina maanaam arrida ñu ne rida albayda ñu ne bayda loolu mooy jënga rida albayda kon seen maam jooju bàyyi ko ca badinatul bayda moo ñëwoon ci goxu Jolof mu daal di fay takk benn soxna boo xam ne mu ngi bokk ci néegi buurba jolof yi soxna sa mu ngi tudd Jayla Ñas Ñas Njaay la sant Jayla Ñas Njaay waaye nag ñu ne turandoom jamoo santoon Ñas ñu naan ko Diayla Niass waxaat nañ ko Diayla njaay ba yàgg Niass di daal di wéy te loolu dinay am ci ay nit ñoo xam ne dañ leen di waaye seen tur ak seen sant yi turandoo ba nga xam ne seen sant yi